yi du ñëwaat ci même situation bi. Mhm. lu ngeen di réclamer au juste. xam nga liñ la koy waxee xam nga liggéeykat moom lu muy bëgg lu dul liggéey te bu liggéeyee day bëgg a ko. maanaam daal xaalis la. waaw waaw voilà mhm. surtout. ñaata la toll. en tout cas ci kanam tuuti vers onze heures ñun dañu war a dajewaat sax. fële sa euh, zone de captage pour def situation globale bi. mais fi ñu toll nii daal li ñu leen mën a wax mooy ëpp na fukki milliards. arrêt de travail boobu ñaata fan lay durer. xam nga loolu nag moom dépendre si ñun ñun bu ñu sañoon benn waxtu sax duñ ko taxaw parce que xam nañ ne li ñuy liggéey euh, ni ñu koy tuddee service public la. service public la kon donc bu ñu sañoon tey ji waxtu sax duñ ko taxaw. waaye nag euh, comme ni ko tubaab bi faral di waxee à l'impossible nul n'est tenu. léegi nag moom taxawaay boobu. ci kilifa yi rek la dépendre wax dëgg yàlla parce que ñun lépp li ñuy laaj rek. muy à ce que ñu fay ñu yore kàddug collectif gi ëmb concessionnaire yi ci réew mi collecte euh, concessionnaire yooyu jël dogal arrêté seen oto mbalit mi ci bedd mi kon tey kenn du ko tonni projet Akon City directeur général bu SAPCO nee na may na Akon ñaari weer ngir mu tàmbali liggéey ba bu ko deful nag daañu résilier baay bi ndaxte euh, moom dafa jàpp ne daal ba ñu joxee Akon 55 hectares bu baat léegi dafa yàgg te ba tey defu fa dara. Souleymane Ndiaye sab ko ñu teew lu ko ci euh, Ndeye Mati Dieng contre wuñ kenn contre wuñ ay kon sénégalais la investisseur la ñun suñu rôle mooy ñu accompagner leen pour que ñu mën a réaliser seen i projet wax dëgg yàlla waaye nag président de la république daf ñu wóolu looloo waral des fois ñu taper sur la table ne ah diw wax dëgg yàlla waroon nga def li defoo ko lu tax defoo ko loolu rek moom war na fi ñëw du yàgg ñu ngi koy xaar su ñëwee dëgg yàlla ñu waxtaan ak moom ñu xool lan lay teg si la table fekkee ne nag dem na ba nga xam ne moom mënul réaliser projet bi su boobaa nag SAPCO Sénégal dina utiliser lépp lu nga xam ne yoon may na ko ko waaye suñu sañoon mooy que mu réaliser projet tey pour le bénéfice de tous les Sénégalais parce que damay rappelé ne dañu dem si lu ñuy wax JO 2026 te Sénégal soxla neen ay réceptifs yoo xam ne daf ñu permettre ñu accueillir suñuy gàtt nit ñi buñ jàpp ne Akon obstacle la pour que nit ñi investir Mbodiène déedéet parce que Mbodiène 504 hectares suñu waxee Mbodiène rek Akon City ñu wax ne Akon dafa bloqué investisseur Akon bloqué benn investisseur am nañ fa plus de 400 hectares yu nga xam ne disponible na képp ku bëgg investir ñu ngi lay tàllal loxo mun nga ñëw nga investir te nit dañu focaliser wu si Akon waaye damay rappelé ne Pointe Sarène soo fa demee pratiquement lu ëpp soixante dix pour cent suuf si ay investisseurs sénégalais leen ko jox te defuñ dara ba tey te ñooñu aussi maa ngi ñëw dinañ leen envoyé ay lettre de mise en demar képp ku nga xam ne jox neen la suuf liggéeyoo ñun dinañ jël suuf si jox ko ñu nga xam ne dinañ ko liggéey et eh, kon joxaguma ko mise en demar amul benn lettre officielle bu nga xam ne jot na ko mais dama ne dinaa ko déglu fekk ñaari weer moom fekkee ne ñëwul deful lu kii su boobaa ñun dinañ xool ban taxawaay la ñu am kadduy Souleymane euh, Ndiaye njiital SAPCO cinquante cinq hectares la ñu jox ay kon boobaak léegi defagu fa dara cinq hectares moom moo jur coow ca nga Ngadiaga nekk ca Malika njabootu laayeen yi ak benn promoteur privé ñoo koy xëccoo taalibe yi nag démb ñu ngi mobilisé woon foofu euh, ne daañu yóbbu mbir mi ci yoon sàkku nañu it ci seen i xalif di Serigne Mouhamadou Makhtar Laay mu àddu ci balaay lambaaye ñaaw Aminata Ba ay garab yu ñu daaneel agent yu commissariat police bu Malika yu eaux et forêt ak ay ndaw yu Malika ku nekk daal di taxaw nekk nag décor ci lieu de culte bi di Ngadiaga 45 hectares daal di jox coow Serigne Magnona Thiaw laay fas yéene nag yóbbu mbir yi ci kanamu yoon. d'ailleurs j'ai fait un constat d'huissier je vais porter plainte parce que man maa yor l'autorisation de coupe depuis 2020 ñu ñëw di dagg garab yoo xam te ni sans mon autorisation tey jii plus tard demain. bu ñu sukkandikoo ci yile taalibe jot na Serigne Mouhamadou Makhtar Laye di xalif général des Layènes daal di àddu ci bile coow bi nga xamante ne mu ngi am lu tolloo ko benn at. mënuñu bés bu ne ay samba booy ni xalifa bi moo leen yónni xalifa bi a wax woonu mu wax nu dëgg nu xam fi ñuy teg suñu tànk mais tànk loolu amul fii ku fi dugg ñun ngay jàmbaral ak toute la communauté laayeen rawatina nag waa Mali promoteur privé bi ak ñi mu àndal ku ci mel ni Serigne Magum Kër Thiaw Laay di ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoñ ci bile affaire di xam ne ni tey lañ gën a pare ngir daal di wéyal seen liggéey ndax xalifa général des laayeen moo leen daal di yónni teg ci ñu yore ay kayitu leer Serigne bi moo may yabal jafal ma attestation boo xam cabinet moo ko signé may surveiller tey gànnakat bi nga xam ne moo yore liggéeyam jooy moo xam la muy jooy lan la incha allahu rabbi li xalifa bi diglee muy projet muy liggéeyam dinañ ko def suba dina ñëw fii taxaw liggéey parce que du mi def mu ko mën a téye nag. Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Médias. coowal suuf yi bari na lool yi ñu koy nemmeeku ci euh, réew mi guvernement bi nag jóg ci jaare ko ci euh, Procasef. Euh, ngir rek lijjanti euh, cowal suuf yi ñuy nemmeeku fii ci Sénégal euh, daal dinañu former ay ndaw yu bëri yoo nga xamante ni daañu mën a lijjanti litige foncier yi ñuy nemmeeku gannaaw ba ñu leen tàggatee jox leen ay outils yu bees yu méngoog jamono ngir ñu mën a saytu lii di jaww ji projet cadastre ak sécurisation foncière moom moo ko def am na sax benn promotion bu njëkk bu nga xamante ni génn nañu xujaja suuf nekk secteur bu bëri coow ci suñu réew tax ñu teg fii Procasef ngir saafara li ni mel Alain Diouf mooy coordinateur technique projet bi. Procasef dafa di programme bi nga xamante ne gouvernement bi ci ndimbalu banque mondiale ñoo ko fi teg parce que dañu gis ci suuf si ñi nga xamante ne ñoo ko yor ci commune yi souvent duñu xam seen suuf nu mu toll te loolu mooy gën a infrastructure kese def nañ ci lu mat seize milliards huit cent millions de francs programme boobu à de mois de janvier di ngeen commencé gis ñooñu wàcc ci communes yi ci Sénégal ci 138 communes yi nga xam ne ñoom ñoo bénéficier ci pro ci PROCAS. lu toll ni téeméer ak fukk ak ñeenti ndaw formé nañ leen ngir ñu mën a jëmmal projet bi. fépp suuf am ñu xàmme ko xam yow ci ban anam nga fa taxawee dafa am ay jumtuwaay yu bees moo tax ñu tàggat ay jeunes yi nga xam ne seen njàng xaw na sori parce que au moins egg nañ université ba am ñaari at mba ñetti at ñu tàggat leen ci loolu jox leen diplôme tey pour que ñoom ñu wàcc communes yi mën a jàppale communes seen suuf. xam ni moo génn tey. kontaante lañ ci am ak mbég boo xoolee le cadre sécurisation foncière dafa nekk loo xamante ni lu mënul ñàkk la ndax nit ñi ñu ngi taxaw ci tànku jëm kanam te tey amul amaana loo mën a def te doo ci dugal wàllum foncier ndax ñu mën a bénéficier wu ci enjeu yi ak opportunité yu foncier am ci wàllu réew. projet cadastral et sécurisation foncière bi nag septembre lañ ko dooroon mu nar a dem ba juróomi weer projet bi bokk ci PAP 2 ko teg ci loxo ministère des finances. et du budget. ci atum 2024 daañu taxawal ay comité de gestion ngiy wërtu ñaxtu yu ñuy faral di ñemmeeku ci wàllum càmm geek wàllum euh, euh, mbéy mi loolee nag ca Jurbel la ñu koy euh, installé su ko defee loolee dana tax ñaari secteur yooyu gën a ñoŋ Alimatu Sarr bi mécanisme de gestion des doléances lañ ca jublu rek euh, moo di wàññi wala rek liggéey ba xeexoo yi am ci mbay mi ak càmm gi daal di jeex fii ci njaareem mu di initiative bu PCAE ngir rek ñoŋal chaîne de valeur agricole bi naka noonu ñu jotee ci marché yi jëm ci la ñuy jëfandikoo ci wàllu mbay mi ak sàmm gi Abdoulaye Sow sociologue la naka noonu expert jëm ci protection animale ca ministère de l'élevage et de la production animale ni ni ñuy doxalee programme bi amaana du ñàkk mu am jafe-jafe bu bénéficiaires yi ñi nga xam ne ñoom la pro ñoo tax programme bi jóg ñu jànkonteel ko wala ñu gis ni ah ni ñuy doxalee kat ci lor la jëm si seen i askan wala indi lor ci alam bi et que programme bi dafa leen war a garantir ñu mën a xam yan yooyu la yoon la ñuy am pour jooytu ko ak pour wut saafara ci waxtaan loolu moo ñu indi Jurbel pour présenter mécanisme boobu noonu ñuy wax ba tax na njëlbeenu at bi ñuy dugg. dëkk bu nekk ñoom ñooy identifier buñ jugee fii ñan ñooy les membres yi war a nekk si comité yi ñuy wax nga nar ka am ci région nga xam ni gouverneur moo koy nar a jiite kuréelu sàmmkat yi ak baykat yi nga war a am comité départemental préfet jiite ka mu am même acteurs yi au niveau de chaque département nga am des comités locaux fexe ba sàmmkat bi ak baykat bi quel que dëkk bu mu nekk mu mën a xam heure bu jafe-jafe amee fan lay mën a jaar pour wax jafe ñu mun ko wutal saafara ci jafe boobu ngir ba mën a àgg rek ci saafaraal yenn xeexoo yi waxtaan wi dañ ko war a gën a ñoŋal ba tax na nag ñañu tàbb nar leen a teg ci bopp comité yi daañu leen tàggat Alimatou Sarr Diourbel Radio Futur Média. Alimatou Sarr jërëjëf ñu jëm ca île de Carabane mu ngi nekk ca Casamance foofu nag euh, ña fa nekk sonn ñu lool ndax ñàkkum euh, ñàkkum ndox daanaka dañuy yendoo wëri ndox. loolu nag doon lu leen metti lool ndax dem na ba affecté seen activité ya ñu fay euh, def suñu ndaw li di Salamata Ousmane Diallo demoon na fa waxtaan ak ñenn ca ñoom ndox mu neex amul ko fi teen boo gas si biir dëkk mu am xorom robinet moo nu fi sauvé ñu dem benn yaakaar yaakaar tas comme ni ñu koy faral di seetloo ci gox goxaat yu gën a bari jigéen ñi ñoom rek ñoom ñooy daal di dund nakar ak jafe-jafe ñàkkum ndox ndox ak loolu la ñu amul ci dëkk bi root nañu ba suñu bopp ci digg bi sa amul karaw billaay sonn nañu moom jardin tam dañuy xëcc baag ros sotti ci arrosoir yi yenu arrosé métti na moom fii ci île Carabane ngir daal di am li nga xam ni moo di ndox jigéen ñi faaw rek ñu daal di dox ay kilomètres yu bari ngir jëfandikoo jëfandikoo ko ci seen ay liggéey. waaye ba tey ñoo ngi dund yaakaar ñoo ngi nii daal. léegi bu ngeen soxlaa ndox nan ngeen dañuy dem rooti ji ba àll. ñaata kilomètre ngeen dox. deux kilomètres rek ak deux kilomètres. ngeen dox dem wuti ji ndox da ngeen koy jël wala teen. de dañuy rooti teen. suñu teen yi duy xóot noonu bu xóotee rek day am xor. Ah, te dafa sore root bi dafa sore. te lenkiin te ñun xam nga gaal yi léeg-léeg du mun a dem. ci ay bidon ngeen di rob wala ay paan. ay bidon. bidon vingt litres yi da nga koy fay. ñaata léegi ay cinq cent mille francs xam nga léegi dara yomb. beneen ñaxtu boo xam ni soxal na leen loolu mooy lu jëm ci wàllum courant bi bi ñuy sàkku ñu daal leen koy defal ci gox bi. courant amuñu ko kër yëpp solaire lañu yor fu tàkk rek solaire defal nag nu fi antenne samay antenne bi tam fonctionné wu loolu moo ñu gën a jaaxal ak courant bi parce que xale bu ñuy jàng courant la fu mu nekk ni bu lamp amul moom gaaf la ci Île Carabane jàqare daal di fës ci seen kanam ñoom ñi la ñuy sàkku rek mooy ñu daal leen jàppale ngir daal di gën a aar seen île bi nekk fii ci commune bu Diamarang rek lu nu si mën a mën a dimbale rek surtout foofu ndox wala ay pompe yëpp soxla nañ ko Salamatu Ousmane Diallo Île Carabane ci diwaanu Oussouye rajo Futur Futurs Médias. pour dogal gi tribunal hors classum Ndakaaru jël démb ne Ousmane sonk nañ ko dugalaat ci list électorale yi loolu nag Bougane gi Dany njiital gëm sa bopp mu ngi koy rafetlu félicité attekat bi jël dogal googule waaye nee na xelam tey na ndax cour suprême mën na niinal dogal googule ñu teewlu kook Umar Mbow cib ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi démb. loolu du problème bi delloo ko ci liste bi du problème bi. parce que delloo woon nañ ko ci liste bi te ñi yore wàllu administration ne jëfewuñu ko waaw réew moo xam ne justice day dogal ñi nekk ci administration mën a taxaw lank ne duñu ko jëfe c'est parce que tout simplement administration boobu tëddewul njaxanaay yéene bi nag ñun pour régler problème boobu ñun ci li ñu wax ci suñu biir programme gëm sa dañu ne en haut cadre de l' administration dootul def politique niñ ko interdire magistrat yi noonu lañ koy interdire képp koo xam ne haut cadre nga parce que jàpp nañu ne waruñu laa teg foo xam ne ñëpp ko bokk ngay am fooy féete kon euh, li xew ci justice bi bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne war nañ ko joyanti ci Sénégal pour suñu njaboot am ëllëg bu gën mu doonoon kàddu ya Bougane Gueye Dany CNRA mu nga woon ca Thiès ànd ak yenn professionnel yu yëngu ci wàllum tasum xibaar ngir tàggat taskatu xibaar yi euh, jëm rek ci élection présidentielle euh, gi ñuy waajal ni ki déwén ndaxte ñoom nañu waa CNRA dañoo seetlu ne bari na ay journalistes yoo xamante ne ci jamono jii dañuy farak ay politiciens wala boog sax ñu leen di manipuler ñeneen ña ca des di bind ay articles yoo xamante ni del euh, dafa favorable ci yenn ay candidats ci yenn ci ay candidats ñu gis ne loolu du yoon du liggéeyu journaliste Cheikh jóg Diop. ñii di yëngu ci wàllu taskatu xibaar di ay journaliste ay caméraman ay monteur feesoon dell ci saalu gouvernance bi doon waxtaani lépp loo xamante ni jëm na lu jëm ci wàllu naka la taskatu xibaar yi war a taxawee ci élection tànneefu njiitu réew mi ñu jublu Khadioum nekk njiitu euh, kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi nekk fii ci diwaanu Thiès. Certains hommes politiques ont des liens avec des journalistes. Le grand. gis nañ ne ñoo xamante ne anam bi ñuy liggéeyee dañuy lëkkaloo ak yenn politiciens yi ñu leen di manipuler code électoral bi dafa tere lépp loo xam ne jëm na ci article yoo xamante ne dafay propagande wala nga jëng en faisant du favoritisme Ibrahima Bakhoum mi nga teewal fi waa CNRA moom mi ngi sàkku nag ci taskatu xibaar yi. ñu doxal seen liggéey. te bañ cee am benn parparloo. une capacité d'analyse. journaliste waaye da nga war a def loo xamante ne da ngay jëriñ askan wi. ki war a woote ji naka nga ko mën a ñaaxee fa mu war a teg tànkam. ñun waa CNRA taxaw nañu temm ñëpp tënku ci li ñu digle. le CNRA est très vigilant sur ce. Mamadou Balde gouverneur bu Thiès ne nag lii taskatu xibaar yi waa Thiès yi def de lu am solo la. waaye ñaax na leen bu baax ñoom. mission di nga gis ñoo xamante ne dañ leen di joxe koppar ngir commander leen ñu defal leen ay article waaye yéen journalistes yi loolu bis bu ngeen ko nangoo xamal na trahir ngeen seen mission seen profession si vous le faites vous vous êtes yi jóge woon nañ ci Thiès Mbour ak Tiwaawoon kuréel taskatu xabaar yi nekk fii ci diwaanu Thiès am yaakaar ne lii ñu dugal ci bopp taskati xibaar yi laa ñu gën mën a ñoŋal seen ab liggéey RFM Thiès Cheikh Anta Diop Barthélémy Euh, digganteem ak Ndiaga Diouf pënd mi wureegut cour suprême da cee war a àddu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi laataa loolu nag moom meerab ndakaaru di Barthélemy Dias nee na tey ci ngoon dana amal ak ndajeek taskatu xibaar yi ngir àddu ci lu ci jëm fukki simili ak juróom-ñaar gannaaw juróom-ñetti waxtu. Diagne noo def. maa ngi sant yàlla. nga léegi looy rey. dama kontaan rek. loolu de am na solo kontaan moom lu ah, baax la noonu xëy rek di rey. waaw loolu lu baax la. reetaan dafa baax sax ci organisme. waaw day day faje. voilà aywa noo def yaram sa sant yàlla bu baax. dañu koy euh, daal di euh, doo rek euh, wàllum course dawal welo li nga xamante ni nag ñu ngi ko tuddee Tour du Fleuve maanaam course cycliste bi nga xamante ñu ngi koy amal. fii nii euh, ci euh, Fouta euh, jàppale nag ni ki démb doomu Sénégal gi di Moustapha Mbow nekk ci vélo club Abdoulaye Thiam moom moo daal di kon bokk gagné étape bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal diggante Ndioum ak Méri toll si 75 kilomètres mi ngi ko gagné nag ci une heure 35 minutes 50 secondes ci li nga xamante daal seetlu nañu ko moo di raw nag ki nga xamante moom mooy maillot jaune bi. Euh, di euh, Miri euh, Rakhir Jabar plutôt ñi nga xam te nag ñoo di waa Mauritanie ñoom nag seen équipe fi mu toll nii ràññeekuwul ci li nga xam te ne daal moo di course cycliste boobule ñaan sik Mamadou Diagne welo club Abdoulaye Thiam continuer di wane dooleem si ñeenteelu édition Tour du fleuve bi lee kii di Moustapha Mbow nekk dossard numéro 3 moo daal di jël raw gàddu gi si ñeenteelu état bi nga xam ne mu ngi toll si juróom-ñaar fukk ak juróomi kilomètre ñu daw ko diggante njum ak mairie ma def ko si chrono bu toll si une heure trente cinquante secondes mu nekk ndam loo xam ni ñëw na si waxtu li ñu ko soxlaa. def na kon contentement ak li ma wax gagné aussi di ko préparé depuis 4 mois 6 mois tey jii quatrième étape bi may man maa ngi koy sant yàlla début état maa amoon ay chute ay problème mécanique quoi mais tey ça passe quoi si na amul sécurité bi rek liggéey la rek c'est que maanaam moom depuis trois mois quatre mois mu ñëw fii ànd ak di dem entraînement tey aussi looloo feeñ quoi. ñu ñëw si juróomeelu position bi équipe bii lee di jànkonteel jafe-jafe ngir yéeg si podium bi bu ñu sukkandikoo sax si kii di seen capitaine di El Cheikh mi ngi xam ne ni étape bi nekk na lu jafe loolu ndax ngelaw li. équipe Mauritanie tey def lan lu mun mun ci def dal nañ seen cinquième place Mauritanie était faible mais maintenant euh, léegi tànn na léegi mi ngi ko complété ay waa France yi ay waa Sénégal yi léegi mi ngi tànn. ngelaw li moo si étape bi. waaw ngelaw bi dafa bi moo diis moo diis tey yàlla baax na rek jaar nu ngelaw bi jël nu cinquième place des na suba des na gannaaw suba incha allah on va essayer pour gagner le premier. bu dee nag mayu jaune bi nga xam ni moom la ñu duppee DG ONAS di Mamour Diallo day des ak Rahir Zoker mi nga xam ni moo dominé classement général bi lu jëm nag si juróomeelu étape bi nar nañu ko daw si circuit fermé si biir commune bu Ourossogui si distance bu toll si juróom-ñeent fukk juróom-ñetti kilomètres Mamadou Diagne si yoonu Diagne jërëjëf loolu nag moo di ñeenteelu étape bi ñu doon amal niki démb tey jii nag lañuy ñuy daal di sóobu ci juróomeelu état bi toll ci 98 kilomètres ab circuit fermé la ci biir commune bu Ourossogui maanaam foofu rek la ñuy daal di yem biir bu Ourossogui leneen li nga xam te ne fas nañ ko waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu football ak ñaari édition journée sportive bu association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne euh, ñoom nag dañu ànd ak yeneen lycée yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nii euh, ci euh, Ndakaaru ngir daal di amal. Euh, seen euh, yëngu-yëngu yooyu la nag nee nag ñu ngi ko euh, tuddee kii di Lamine Ngom doonoon ancien athlète nee nañ nag fédération sénégalaise bu football itam dana ci dugal loxam ci kàddu abu Mbow moom moo di secrétaire général googule association Euh, Lamine Ngom nag dafa nekkoon euh, koo xam ni bi muy jàng diggante bi muy nekk première ak terminal si football bi daf si xariñoon lool ak si handball bi si volleyball ak si natation ba saut en hauteur mu doon koo xam daal dafa amoon mayu yàlla si affaire sport te rew ko woon nag jàng ñu ngi fàttaliku ni si benn journée bi mu def final coupe du Sénégal football gagné ko ngoon gi mu dem final coupe du Sénégal handball gañe ko waaw si diggante bi mu daw defi tuuti volet ñu xawoon leen mëne mu daw génn terrain bi dem volleyball ba joué ay minutes ba remonté gars yi ba raw leen mu soog a dellu siwaat yi xale li mu doon def kooku nag moom la ñuy sargal nag ndax xale yi war nañu xam ni sport warulaa tere jàng sa jàng ñaareelu édition journée sportive du lycée Blaise Diagne mu dajale ñeenti lycée ñaari lycée banlieue Limamoulaye ak Yëmbal ak ñaari lycée Dakar muy Blaise Diagne ak de la Fosse ñu jongante nag si sport euh, maanaam football ak athlétisme ku si gagné nag samedi si dix cinq heures tàkkusaan si jotee si lañ lay jox ñii ñu jox leen coupe ñu jox leen médaille yi ak yooyu euh, ñu amuloon daaw moo di implication wu fédération sénégalaise de football dugal ci loxoom te bii yoon monsieur Augustin Senghor bi nga xam ne mooy président fédération sénégalaise de football jël na dogal ni non seulement dinañu gunge ci manifestation boobu nga xam ni nësër bu rafet la waaye aussi dina ñëwal boppam. ñu daal di ni wàllu football ak Ligue Europa niki démb nag lañu doon amal dernière journée bi. olympique bu Marseille jekk woon noonu loolu ngir qualifié ci li nga xam te ne daal moo di huitième de finale waaye mujj te antu la ko waral nag moo di seen jogante gi ñu doon amal ca Angleterre seen digg ak ñii di waa Brighton Brighton moo leen mujj daan euh, ci 88e minute de jeu ci njeexitali jogante gi daanaka la Brighton daal di dugal bit bi nga xamante ni moo leen permetre ñu mujj kon bokk euh, jiitu ñi nga xamante ni waa Marseille ci bopp classement bi daal di qualifié ci huitième de finale Marseille nag dina daal di jouer match barage seizième de finale ngir am yaakaar fekki Brighton euh, ci phase huitième de finale yi leneen li nga xam ne mën nañ ko wax moo di Toulouse te équipe bu France moom jot naa jàll. ndax dafa fekki ñii waa Limassol seen dëkk daal leen daan 2-1 euh, ren moom donte ñàkk na ci digganteem ak Villarreal euh, moom itam euh, daal dina kon bokk toog ñoom de Villarreal moom leen fekk seen dëkk daal leen daan ñetti bal ci ñaar Bayer seen moom jàpp leen ni dafa dal di am i ndam gu yaa sax ci digganteem mag ñii waa Molde club bu Norvège. juróomi bal ci benn mën nañoo jàppale sax Bayer Leverkusen di équipe Allemagne boobu la ci match yi mu doon amal yëpp da leen daal di gagné maanaam 18 points sur 18 la daal di am parcours sans faute Abdallah moom daal di ràññeeku loolu ak équipe bam bii nga xamante ni moo di Glasgow Rangers di équipe bu Écosse ñoom ci déplacement bu ñu doon amal niki démb ca Betis Séville ci Espagne ñoom Abdallah Sima ñoom ñoo daal di am ndam. ñett ci ñaar kii di Abdallah Sima sax moom moo daal di ubbi score bi di wane état de forme moom bi nga xam te ne boo bokk léegi Euh, ñu ngi koy waxtaane ba am yaakaar ni loolu euh, war naa mën a bokk si jour yu war a mën a défendre lii Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations bu ñu amal ca euh, Côte d'Ivoire ñu narkaa door fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàppale nag ci lu jëm nag ci wàllu tirage au sort huitième de finale Ligue des champions ak itam barrage Ligue Europa dañ ko daal di amal ni ki altine gi ci bu di jotee ci heure Ndakaaru ca Nyon dañ koy daal di amal ñoo nekk ca Suisse jaajëf Cheikh Tidiane Diagne gannaaw ba ñaar fukki simili kee ñeent bootoo ci juróom-ñetti waxtu ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi film bi di euh, le prénom bu Aïssatou Ndiaye Guèye daal di nañ ko euh, wone en avant première euh, démb ca institut français bu Ndakaaru muy film bu njëkk bu jeune réalisatrice bile amoon ndam daaw ci Dakar Court bi ak raaya bi ñu dippee le prix grec France Télévision mu ngi nettali ci film bile jaarjaaru am fanweeri at ak benn nekk avocat war a jaakaarloo ak euh, gorom bu jigéen mi nga xam ne moo ko bëgg a tànnal tur pour doomam. suñu professeur moo ñu joxoon examen pour ñu nettali suñu tur waaye nag suñu tur ba ñu suñu yaay ak suñuy papa yi tuddee tur bi nga xamante ne ni ñun ñoo koy créer suñu bopp mm. histoire bi foofu la histoire bi jóge projet bi bi mu génnee école dugg na résidence avant muy dugg résidence je pense que en 2021 postulé woon naa ci Dakar cours bi mm-hmm. mais un autre projet waaye jotuñu ma woon sélectionné nag donc si 2022 bi laa postulé waat mm-hmm. donc bi projet bi duggee résidence nag changé na lu bare bare bare. scénario bi ci boppam moo scénario bi ci boppam moo changé may thématique gu prénom bi. Mm-hmm. moom mi ngi fi ba léegi. Mm-hmm. et bi ñu duggee résidence euh, suñu ay encadreur permettre nañ ñu gën a comprendre suñu sujet. donc ci biir loolu gëstu nañ pour xam exactement yu ci bëri. Dakar Cours 2023 dina jeex ni ki ëllëg samedi ci Ziguinchor ajuma ji lañuy door officiellement fukk ak juróom-benneeli édition festival Kom-Kom door na altine ji weesu ak benn voyage de presse ci ay village yu bëri yu wër euh, kon Ziguinchor ak Gambie Salamata Ousmane Diallo mooy suñu envoyé spécial foofee. ci pause lañu nekk waaye étudiants yi daal di toog biir classe di am sax ay exercice yu nekk di def Institute of Travel and Tourism of the ñu ko daal di sos ci atum 2007 at bu jot dana daal di dalal lu toll ci téeméer ak juróom fukki étudiants Ousmane Ndaw nekk kenn ci ñoom di wax njëriñ bi mu gis ci njàng mi léegi. parce que des ñëw lijjante xool foofu noonu yéen tamit naka ngeen di dundee. Ah, ma jéem koo balancer ak fini tamit nu mel gën see xam dara. bile école nag la ko tax a mooy daal tàggat ay étudiants tamit daal di fësal caada ak cosaan yu réew Sénégal ak bu Gambie Adama Ba mooy directeur l'école bi. am na produit bu ñoo oyee ninkinanka mooy dañ jël histoire yi Manding boo xam ne mu ngi jógee ca Mali ñu seet ñaari histoire histoire boobu naka la amee relation ak Kora story yi ñu dee wax xale yi bu yàgg touristes yi dañoo jógee fu nekk ñëw Gambie di dem ci excursion boobu léegi am na succès ba nga xam ne yokk nañ ci Île de Saloum biir Sénégal ak yokk nañ ci Casamance tam ngir jaay destination Sénégal ak bu Gambie institut bi dafa daal di lëkkaloo ak agence sénégalaise de la promotion du tourisme ASPT bu Sénégal ci fukki at ak juróom benn bi mu sosoo ba tey bileeg école jot na tàggat lu toll ci juróom ak juróom yi jamono ji ñu ngi nekk di daal liggéey. ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci euh, déglu bi dig daje ëllëg samedi incha allah ci seen magasin xalam jërë ngeen jëf. sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari.com kenkeeri le grand jaxaay ñoo ne bi kurpañ bi mu dóor démb état bu kurpañ baa ngi riit yéenekaay ba léegi l'observateur nañu gannaaw ba juge bi Ziguinchor bi santaane woon ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi agence judiciaire de l'état bi ko dégg taxoon ñaari wàll ànd dem ca cour suprême ngir mu àtte leen cour suprême yebal leen ci tribunal bu Ndakaaru tribunal bu Ndakaaru wax na démb ne nañu dugalaat Ousmane Sonko ci liste ba nuppi nag ubbil ko yoon ngir mu mën a doon candidat bokk ci wotey présidentielle yi di ñëw Vox Populi bind ci xëtamu njëkk ne Ousmane Sonko amaan na leneen ndam muy ñaareel bi yoon ginnaaw ndam li mu amoon ci Ziguinchor ndam li mu am démb ci Ndakaaru Sud Quotidien nee nañu mooy ñu dugalaat ko ci liste électorale le mandat ñu ci xëtamu njëkk juge bi dekkal na Ousmane Sonko ngir 2024 la nañu bataille d'instance bi Sonko gagné na ko point actu ndax coow li jeexagul ne état pourvoi lay def bu ko defee yëfi delluwaat cour suprême journal bés bi le jour di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba bind moom it re cour suprême l' di ñu a delluwaat ko ci liste électorale yi sour jàpp ne kii di Macky Sall kaawa dëbb la def jamono ji journal lay fa mel ne ku naan ko mooy dëgg sax état bi kaawoo nañu ko ba ma nga jëm cassation le témoigné nañu Ousmane Sonko moom it moo ngi ñuy ping pong ne ginnaaw tribunal bu Ziguinchor ginnaaw bu njëkk journal la téema ñu ne bala ñuy topp procédure pourvoi en cassation bi ba muy jeex booba dana fekk dépôt candidature yu weesu daanaka loolee sax moo tax enquête ne kay jàpp ne mbiri Ousmane Sonko fi ñu toll mooy suite et pas fin maître El bokk ci avocat yu état ni ñu ci bés bi le jour ñi dañuy guddal ab jël rek waaye na woon fa woon ndam lu gàtt te gaaw lu ñu amoon ba ñu jugee ci tribunal bu Ziguinchor loolee moo leen nar a dal bu ñu delloo les économies mi ngi ñuy li tax ba ci coow li bàyyiwuñu xel statut avocat bi mu doon lu mu ci mën a doon suur soi gis na ne maître Moussa mooy koo xam ne li coow li di bari bari li mbiri di tar-tar amul benn yoon boo xam ne ñànki na bañ na ko ba ca cellule ba mu nekk bañ ko fa bëgg a génnee ngir jox ko mu lekk dane mukk du ci dal nañu ko indi lekk gi mu lekkee ko ci biir cellule bi mu nekk amul it benn traitement de faveur boo xam ne sàkku na ko retour de parquet gi ñu la na ci laas bokk ne ci l'observateur ñu tàmbalee ci laas mi ñu xëy xamal ne benn maire bu am ans juróom-ñaar fukket ak juróom moom la gorom bu góor yóbbu ca yoon ba ñu tëj maire bi kaso ndax goro bi nee na maire bi da ko escroqué tribune moom dañuy wax scandale bu am ci orphelinat bu Ndella Madior Diouf mu di benn femme mariée bu fa bëggoon sàcc benn liir ba mu jaral ko mu dem ca visile ba proposé ko 2 ngir mu sàcc liir bi l'observateur moom xëy ab gëstu leneen kenn ku ko dund mi ngi wax ci l'observateur ne ba mu yëgee ne ñoo ngi maye gelam àddunam dafa tukki li mu naroon mooy dem ca jàkka ji fekk fa ñu takkee sëy ba mu tas mariage ba sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali mbalit mi ci mbedd mi tey kenn du ko toon ni concessionnaire yi ñoo jël dogal dakal seen liggéey nguur gi la ñu bëgg mu fay leen li mu leen amel ëpp na fukki milliards ci sunu koppar projet Akon City directeur général bu SAPCO nee na may na Akon ñaari weer ngir mu tàmbali liggéey ba bu ko deful daañu résilier baay bi ndax ne ba ñu ko joxee 55